jaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi topp seen site internet murit point info comme ni leen ko waxee woon nag yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi seet si ndaanaan bu mag Moustapha Seck responsable APR fii nekk coordinateur opérateur économique fii ci bu Moubarak balaa ñuy xuuse ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu présenté woo ko mbokk téléspectateur murit info yi koy seetaan. bu baax ci weeru koor gi di ziar bu baax équipe bi nga ñi nga xam ne si ni ñooy bëggee murit info. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñaanal xalif sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ak sëriñ Cheikh Jëmb Fall ña dugg ci koor gi ci bisimillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ci li ñuy war lépp suñu boroom nangu ko dencal ñu ko fi yàq àggul jërëjëf. ah kàddu yi am na solo trop te présentation bi macha allah ñu balaa ñuy xuuse Moustapha dañoo bëggoon xam ba xam naka ngay ooree. Ah, xam nga wor de mom xëy la rek baña lek baña nan a waaw bon metti na nak quand même ndax euh, bo bëri ay activité leg leg yaangi ci si terrain bi ak Touba ni mu tangé parfois fay metti mais dañ ko woré comme ni ko di woré parce que c'est un devoir. mais sa gisé ni ak sa kanam dafa man nuru ragal ko torop Moustapha. bon xam nga du ragal ko mais. ni nga koy defee mooy métti koor bu fekkee da nga koor da mhm. nga woor nekk foo xam ne si nii peut-être doo génn nekk si biro wala nga toog benn place ba 18 heures nga génn mhm. peut-être problème yi du posé wu mhm. mais ñun nous sommes des de terrain bu ñu wooree ñu ngi si terrain bi parce que benn da nga am ay parcelles yooyu joxe wala yooyu wane ji nekk ci pàkk yi yombul wala nga nekk si ay réunion wala nga nekk ci loo xam ne si nii daal ci bitti nga koy defee li activité boo xam si nii ci mbedd mi nga koy mënee loolu nag soo ko boolee ak weeru koor gi mën na feeñ ci sa kanam surtout nag nga nekk si début bi parce que début bi moom ñaare lu ci xaw a feeñ da yomb ndax dafay bëri yu lay manqué daal boo defee deux trois jours xaw ko tàmm sax dina tane day njël benn góom day xaw moom comme ni mu méttee si yow. day xaw a métti dëgg neexul mais ma gis ni nga koy wooree fii ci biir kër gi ak njaboot gi ndax waxtu julli bu jotee ak naafila gi yëpp da ngay dem ci jumaa bi la gën a jege wala dangay ngay toog fii jiite njaboot gi ak soxna yi. xam nga bu dee ci bi la moom man maa ngi si terrain bi fu ma julli fekk foofu laa koy defee mais bu fekkee ni après dog bi la nii mhm. fii si kër gi fii laay nafila su ma jullee géej ba pare damay ànd ak famille bi ñu fii si ëtt bi mhm. du ñu dem ci démb nag dem nañ ci grande mosquée bi pour def fi première naafila bi mais bu dul loolu moom yeneen jours yi des yëpp mën nañu nafila, fii suñu kër wax dëgg yàlla ndax ay doomi soxna lañ nu ñu neex mën nañ bu ñu neexee ñu jël kaabil bu ñu neexee ñu jël téere bu suñu soñ bi. bu safaan ba nga lekk. koor gi waa xam nga koor gi man daanaka naan laa ëpp lu may def ndax dama damay sonn te man dama bëgg ndox mhm. naan bi daal moom xam naa ne gis nga tiyaaf yi bi ma diggee ba léegi maa ngi laaj ndox di naan loolu moom bokk na ci li may empêché may lekk parce que boo dee naan lu bëri doo mën lekk. Mhm. te baax na nga di naan ndox bu bëri si koor gi comme journée bi da ngay fournir bu bëri su ngoonee temps bi ngay am pour naan nga profité si naan si pour mën a remplir mhm. daanaka boo dee seet sax moom mooy gën lekk bi. jërëjëf euh, ci kayu kàddu leer na macha allah balaa ñuy def leen dañuy xuuse ci li nga xamante ni si mooy li nga xamante ni si yaakaar naa ci ngay dox muy affaire politique Moustapha bëggoon naa xam lan moo la dugal ci politique ak lan la la politique apporté ba tax nga visé ci wala lan la la politique ma sa xañ ci sa àdduna. waaw politique day xam nga li ñu si dugal mooy mën naa la wax sax ndogalug yàlla ak nattu ndax politique dafa metti mënoon nañ peut dund màgget te duñ def politique mais yàlla moo ñu ko nattoo te xaw mu de mais avantage yi bareegul inconvénients yi moo gën a bari avantage yi ndax euh, benn li nga xam ni mooy inconvénients yi rek mooy li ñu ciy ñàkk si alal dafay bari te loo am yow ñu jàpp ni moom moo la ko may or que du demee noonu loolu mooy premiers inconvénients yi deuxième inconvénients yi mooy dina la indil ay noon te mën na am boo ko deful woon parce que li qui un public devant les ci nit ñi kanamu nit ñi mën am loolu mooy tax ñenn duñ politique moo indi xam nga di sa alal di la xaw distancier ak sa famille loolu xam nga la waaw politique je veux dire voilà dëgg la Moustapha ci loolu laay xuusee ma ñëw ci ki nga xamante ni si mooy président Macky Sall ñu gis ni chaque euh, élection rek day perdre fii nga xamante ni si mooy diwaan Touba naka la ngeen mën a dundee yoon yene ngeen nga xamante ni si yéenay responsable yi fii maanaam yéen ñi nga xamante ni si yéenay responsable yéen deful seen liggéey lu waral mu gañ fii Touba wala moom bi nga xamante ni si mooy seen leader moo deful li waral mu gañ fii Touba Mbacké. xam nga loolu question boobu noonu. li jib bari na lool mhm. mais.

son excellence président m'a gagné mais tel n'est pas le cas li tax ñu ma ma partager responsabilité yi manque de moyens amna ñaar manque de considération amna lolu bu responsabilité wu parti politique bi la bu fekkee ni responsabilité bi nga xam ñun leader politique yi manque de présence sur le terrain ñaar également manam manque de leadership am na loolu boo ko boolee responsabilité partagée lay doon ñee dañ ciy am wàll ñun ñu am si wàlla mais loolu lépp daal lu koy defar mooy fexe de telle sorte que xool nit ñi nga xam ci nii peut-être ñi ngi si présent sur le terrain toujours ils sont présents toujours sur le terrain nga confier leen yenn responsabilité yi mais boo dee politique loo ay nit yoo xam ne si nii peut-être xamnañ lan moy politique ci responsabiliser wolen fi fii militants yi bëri on a plus de 276000 cent soixante électeurs loolu ay raison la wax da ngay boole trois communes wala trois départements benn commune bi ëpp leen doole électeur bu bari la té do fi dégg lu ay députés yo xamné ci ni c'est des députés simples yaakaar naa ni politique lo defu ko da ngay am poste de responsabilité yoo xam si da nga ko mën a confier nit ki mu mën am ay jeunes yu muy liggéeyloo am ay femmes yu muy liggéeyloo mhm. mën am ay moyens yu muy defee mhm. politique am bu loolu amul pour nga def politique du yomb te loolu dañ ko manqué kon man moo tax ma ne responsabilité bi ko partagé. Mhm. am nañ ci wàll nguur gi am ci mhm. jërëjëf loolu leeral am na solo torop ñu gis ni fan yi passé rek yéen a ngi def benn ñaxtu di joytu ci benn ay tali yoo nga xamante si ak ay yoon yoo nga xam yéen ko doon ñaxtu en tant que yow mi nga xamante si yaay responsable fii nekk coordinateur bu Katamu Barak yow loolu naka la la mën a dikkee. Ah, xam nga lu jaadu la man gis naa vidéo yi booy di ñaxtu ni dañoo soxla ay tali. Mhm. xam nga Boukhatoul Moubarak dafa nekk benn village boo xam ne si nii mhm. boo wañee ci Touba ñetti village yi gën a rëy ci la bokk am nañ 36000 parcelles 36 mhm. 574 parcelles yoo xam ni daanaka yépp c'est des parcelles habitées mhm. am nañ 160 habitants soree dëkk 17 km, environ 7 à 8 km. tali benn dugg fa boo xam dafa jóge ci le centre ville bi dem handicap ci village bi ba village bi ci Touba. Et tout récemment annoncé fi 26 kilomètres yoo état Sénégal financé def ko ci bi 30 mètres boo dañ koy deuxième corniche du deuxième deux fois à hauteur de 13 milliards de francs CFA man en tant qu'acteur politique ak en tant que maanaam ku dëkk ci dëkk bi di fréquenter fu bari ci dëkk bi di dem ci mairie ba ak fépp gis naa ni maanaam loolu priorité ndax dëgg la tali boobu ñuy jël di ko wërale dëkk bi benn am na fu bëri fu mu baaree mhm. nekkul benn 30 bu wër Touba mu daj am na fu mu baaree man xam naa ko parce que du ma bis met waaye chaque jour maa ngi ci suuf si mhm. suuf si fu mu fu mu bedd baaree rek xam naa ko mhm. ci dëkk bi bëri na fu mu baaree ñun néewuñu woon loolu baaxul baax na c'est beau et mais yaakaar naa deux fois deux voies defoon ko sax corniche bu njëkk bi fi nekkoon def ko mu daj kap nekk deux fois deux voies moo gënoon def boobu noonu deux fois deux voies nga xam ne boo génnee xayra rek jéggi raay bi day baari kër ñaŋ soo jógaatee foofu noonu boo demee ba tolloo kër bay laa dafay baare boo génnee daaru xuddos romb gara garage daaru moxti bi foofu noonu 20 mètres la fi boo boo jégee dugg biir daaru xuddos mu nekk fi 15 mètres ba ni mu demee ba ci tokkooru sëñ Seexum sëñ nous Moustapha mhm. sëñ Cheikh foofu yëpp dafay kon yaakaar naa ne def études yi ni ko ko def benn voie jëlaat 13 kilomètres yi am ñu koy ay Mbusoo fi ay Touba bu mu fi ay village day complètement mhm. avec la ville de Touba defoon 13 kilomètres yooyu foofu moo gënoon di priorité foofu loolu moo tax wax maanaam waxatum baar ci dëkk bi la bokk Serigne Saliou woo ko sa joon moo ko moom ca amoon na mébét ci maanaam def fa ay tali ba nattoon ko ba pare nañ ñu ci sóoraale loolu vraiment gisuma ci inconvénient man. kon jàpp naa ne boobu message président Macky Sall dina ko dégg comme que devoir moom war a nekk priorité rek dina ko taxawal. xam nga c' est pas bi moom mooy. déci décider. wala mooy wax ni nañ jaarale fi yoon bi. Mm-hmm. bu ñëwee ci dëkk bi am na ñoo xam ne si ni ñoom ñooy toog waxtaanee loolu ñii waxtaanee loolu ñoom ñoo ko def.

voilà loolu mooy problème. loolu dëgg la Moustapha leer na trop ñu gis ni que euh, locale yi mi ngi ñëw ndax mën nañ xam ba xam Moustapha déposé na candidat mu nekk conseil départemental. xam nga élection yi dafa am ay enjeux yu ci am parce que da ngay dem ci parrainage d' abord. Mhm. boo jeexalee parrainage nga doog a déposé sa candidature. Mhm. te tollaguñ ci étape boobu mais nag n' empêche que ñu ngi ciy wax ak ay kilifa. Mhm. ñu ngi ciy wax ak ay responsable politique. yoo xam ne si nii jox nañu baat yaakaar naa ni korité nga gis benn coalition boo xam ni coalition bu dëgër lay doon boo xam ni dana taxaw tem pour maanaam hmm, conquérir baatu conseil départemental bi parce que soxla nañ ko te yaakaar nañ ni am nañ ci pexe mm. waaw parce que ñu ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne ay acteurs lañ mm. yaakaar naa dinañ am benn coalition boo xam ne bu génnee ñëpp danañ xam ni coalition bi mérité na conseil bi incha allah rabbul ñu ngi koy xaar jëf Moustapha kàddu yi leer na trop macha allah sa kàddu tàggatoo lan ngay tàgguwaat téléspectateur Mouride Info yi lay seetaan bi xam nga tey la premier jour ramadan mhm. c'est un peu compliqué boo dogee ba pare ngay déranger wu di dem di fekk ni pour di ko mhm. interviewer mhm. ndax lii aju ci benn bis bu fa benn fan bu njëkk ci koor dafa xaw a bari dafa bëri ay coono boo doogee pare da ngay sonn da ngay am ay bopp yu métti tout yooyu ñu ngi leen koy jégalu di leen masawu te di leen sant bu baax a baax. Mhm. te di ñaan suñu borom tabaraka wu tax la mi nga xam ne si nii. Mhm. lu mu rafetal mu rafetal yàlla na ñu rafetalal suñu koor gi. Mhm. ndongul ñu ko. yàqal ñu ko fi yeggeegul sant na leen bu baax a baax jërëjëf. Moustapha waa Mouride Moustapha waa Mouride info tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci dalal gi ñu dalal ak teeru bi nga ñu teeru macha allah yow tamit xajaloo ñu dara ci sa bopp ñu ngi lay remercier bu baax a baax jaa ngeen mbokk yi ni ngeen koy ànd ak Ndeye Thiam Saliou ba gi jeex koor gi ak Ndeye Thiam Saliou la ñuy wax tey nag moo nekkoon suñ premier numéro ñoo ngi fii ci jëndatu seet si ki nga xamante ni si mooy responsable bu mag fii APR euh, nekk coordinateur jeune bu Xatamu Barak ñu koy wax Moustapha Seck ñu ngi koy remercier bu baax a baax ñu ngi leen di jox dig daje beneen numéro demain incha allah rab jaa ngeen jëf